ibnu abdul aziz dafa ne man su may julli dañ ko gis suy julli su waxee bismillahi rrahmani rrahim day naan teg taxaw alhamdulillahi rabbil alamin teg ba faatiha jeex ñu ne yow lii la la mu di tontu su ma waxee bismillahi rahmani rahim damay xaar yàlla tontu su ma waxee alhamdulilahi rabbil alamin damay xaar yàlla tontu ma xoolal def noonu def noonu ba yegg ci ihdina siratal mustaqim xam yàlla lu muy wax ah jaam laaj na ma lépp lu mu soxla dinaa ko jox boo yeggee ihdina siratal mustaqim yàlla mu ne wali abdi ma saala li nga laaj da ko koy am léegi nag yow bu fekkee bismillahi rahmani xoolal même naafila bi am na jàkk yoo xam ne loolu laa waag laaw sama la ko mën a loolu laa waag laaw sama la ko mën a waa ji tari ku laa day dem ba dootu wax di ku laa parce que dañ ko ne dañ ko ne rakk bu nekk defal 40 ku laa ku laa laa laa ma demee ko mën a loolu laa waag laaw sama la ko mën a kooku day dem ba caag dootu wax sax ku laa kenn du xam lu muy wax xam nga nit ñi lan lañ xam ñu wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar non wallahi azim daaw daaw nekk naa sama biir néeg léegi benn jàkk buy naafilu te damaa dama ne sama soxna déglul allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum allahu akbar ma ne wax lu taxaw sax léegi xoolal léegi euh, problème bi mooy para para xee nañ dem nañ léegi naafile bi jeex na léegi nit ñi bu ñuy bés bu kër bu ñuy def may laaj dóor nañ julli gi mu daanu dellu nañ ñibbi suñu kër léegi lu ñu def toog naan ataay seetaan théâtre seetaan lamb toog yow bu fekk xanaa bu la avion doon xaar sax vol sax bu la doon xaar waaye yow ndeysaan fala da ngay def loolu ba pare toog sa kër la dafoo dara léegi ngay farax faraxee julli lii nga xam ne sa adduna ak sa àllaaxira yëpp ci la ne la faaxee nga koy farax faraxee doo def ndànk kan moo lay dàq looy daw ba ci ba ci suñu paree julli tasbiix yi da ngay gis ku naan astaxfirullah soo nee nii astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah ñaar astaxfirullah nga def même course bi sax da ngay kuraan di rocc rek foog lay jàpp allahu akbar man sama yaram day taw damay xool xool ba doo def ndànk wala boo ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yàlla jéggal ma yàlla jéggal ma yàlla jéggal da ndànk ngay def astaghfirullah nga xam li ngay wax astaghfirullah bul wax saafurulaay saafurulaay saafurulaay luy saafurulaay man ndànk allahu akbar allahu akbar allahu akbar kuy puusal ku lay daal mais jaamu yàlla la jaamu yàlla bi na rafet na rafet julli gi na rafet jàng alxuraan bi na rafet lépp na rafet bi ñu laajee yeneen bi lan mooy euh, ihsaan mu ne an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaa tey kenn du si ñun bu doon julli mbokk yi bi nga ne allahu akbar rek malakal moo ci taxaw sa kanam ne la boo paree julli da ngay dee julli nga gën a koy jullee mbokk dama laaj sérieusement ñi ci biir jàkk ñëpp bi nga ne allahu akbar malakal moo di ne la boo paree nag ndeysaan tey mooy sa dernier julli da ngay dee nii julli googu noo koy jullee day rafet wala du rafet njàng mi dina neex wala du neex di nga toroxlu wala doo toroxlu lépp di ko def ba malakal waa léegi nag julli googu lañ la wax ngay julli tout le temps an taabud allaha ka annaka nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi gis yàlla tey bu la nit doon liggéeyloo nit kese bu la nit waxoon fii damaa bëgg nga ma koy baleel bés nekk na set nga ne ko waaw mu ne weer ñaata nga ne ko cent mille mu ne suba xëyal nga xëy mu xëy taxaw ngay bale mu taxaw nooy def bale boobu da nga koy taf tafee da nga koy taf tafee noo koy bale da def ba mu set picc bu pare nga ni ko sawaay <laughs> gis nga ni la laa koy def bis bu nekk nag waaw ah, yow kay wóoru naa la li léegi nag yow nga bëgg jaamu yàlla ngay liggéeyal yàlla nga koy yàq sooy julli kenn du xam looy julli booy jàng alxuraan kenn du xam li ngay li ngay wax am nañ benn imaam boo xam ne bi ñu bi ñu demee këram yow imaam dëgg yàlla ni ngay jàngee faatiha bi doy na waar mu ne ah seen njàng ak suñu jàng du benn yéen di ngeen di jàngal ñun dañuy jàngee du benn du benn bu leen ma sonal du benn ah ma ne benn alxuraan alxuraan yàlla bi benn la di faatiha ñaata faatiha ñoo koo xamante ne buy jàng alxuraan mel na buy am na sama benn doom yaakaar naa mu ci jàkka ji su ma juumlee bi mu gënee nekk xale dama teg dama nekk ci kaw kër bi ma tëdd nii ak sama soxna ñuy waxtaan ma dégg xale bi ci suuf na di rab ma ne waaw aw aw mooy sama soxna mu ne ma ah ma ne ko kooku du Mouhamed mu ne ma Mouhamed la kay ma ne ko day rab mu ne ah li muy def de nuru naa ma jóg fi ma tëdd sëpp balcon ma ne Mouhamed mu ne ma nii ma ne ko da ngay rab mu ne ma noonu imaam laay toppandoo <laughs> ndeke bu ñu wax ak xel moroom yu ndaw yi muy toppandoo imaam xoolal loolu xoolal loolu nañ ko imaam lay topp mu ne ma imaam lay topp imaam bi di muy jàng alxuraan lay toppandoo ko man ma dégg ko def ne day rab non day war day nan yàlla ñu mbir mbokk yi foog ñu bàyyi xel suñu diine loolu nag dama koy wax kenn ku nekk ku nekk sa bopp ngay liggéey liggéeyaloo kenn de ni julli yi ñuy julli ku nekk kenn julli lu kenn koor gi ñu war ni kenn waralul kenn lii nuy def nii kenn defalu ko kenn ku nekk sa bopp nga ko defal kon nag boo koy defal yàlla na sell na set na rafet tey jii looy liggéeyal nit rek su rafetul su baaxul do nga perte kooku ana tëyër yi fii ci biir jàkka ji na tëyër li ngeen di ñaw ku ngeen ñawal rafetul perte ngeen client boobu ana maçon yi ku ngeen tabaxal baaxul perte ngeen kooku noonu la liggéey bi yëpp képp koy defal dara baaxul perte nga ko léegi nag yow nga bëgg defal yàlla te nañ koy defal bu baax julli bi baaxul jàngal Alxuraan bi baaxul njàpp bi même njàpp sax da ngay gis bu mënul jàpp jàpp nii da gis kilifa bu mënul jàpp jàpp jàpp laa wax de lu mu doyee waar jàpp kon suñu diine dafa jar ci ñun ñu xam li ñuy def lan la ba pare ñu xam ne yàlla lañ koy defal lépp luñ koy defal moom yàlla ñu def ko mu rafet waaye ñuy ñaan yàlla tabaraka wa taala di làqatu ci moom ñu soxla ko moom yàlla suñuy julli ñu sujjóot su guddi gi jotee bu ñëpp nelawee ndeysaan rabiatul adawi jigéen la woon danaan bàyyi ba guddi mu ne yàlla ñëpp nelaw nañ buur yi tëj nañ seeni bunt bu nekk wéet nga ak sa soppe mu ne yàlla man maa ngi wéet ak yow yàlla buur yëpp tëj nañ seen bunt ñépp tëdd nañ di nelaw ku nekk wéet nga ak ki nga bëgg am na xale bu góor boo xam ne mu ngi wéet fële ak benn xale bu jigéen am bu góor mu ne yàlla ku nekk wéet nga ak ki nga bëgg waaye man yàlla maa ngi nii wéet ak yow xam ngeen guddi gi ñaata ràkka la doon julli junni ràkka la doon julli rabi atalade danañ wax yàlla lay takka tardaawal anaamu xidaabu yàlla boo kontaanee ku mer sama yónnee fekk na benn waaye muy lakk dibi dibi waa ji di lakk dibi rek mu jooy waa ji ne ko Rabia xanaa da ngaa xiif bëgg ci yàpp bi mu ne ko déedéet mu ne ko kon looy jooy mu ne damaa xam ne xar mi bi nga koy lekk da ko koo rey fees ko ñun ëllëg yàlla bu ñuy lakk dañuy dund yow xar bi nga koy lakk dañ ko rey fees ko yëgatul métit ñun ëllëg bu nuy lakk day fekk nuy dund suñu ruu day nekk suñu yaram mu ne loolu moo ma jooyloo te jigéen la allahu akbar